asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di ñaan sunu borom di ñu defal jàmm fu ñu mën a nekk sunu xikma bi nag tey day wax ne muntahal anaqa hina yakunu fikruka akthar tahziban min shaklik wa mashaaciruka azka tiban min atrika wa xuluqika aktharu jaazibiyatan min xalxatik xakim bi nee na fi jekkaay yam jekk jekk nga xam ne mooy boole taar ak organiser moom loolu ñuy boole di ko tuddee jekk mu ne fa mu yam dëgg-dëgg jekk finalité ba mooy say xalaat gën a am teggin ci sa melokaanu jëmm maanaam ku la séen nii sa jëmm lu mu ko neex-neex rek bu déggee say xalaat génn ci yow te mooy nga wax maa nga jëf mu gis rek dana xam ne li ngay taaru taaru walla li ngay am am bind bu jekk say xalaat moo gën a jekk sa bind waaye say sentiment yëg-yëg yi ngay am ni ngay yërëme ni ngay bëgge ni ngay bañalu bon ni ngay seexaloo ni ngay jombe yëg-yëg yooyu noonu gën a am parfait parfum bu neex que parfum bi ngay pompo yaram di ko diwoo waaye itam say jikko gën a am euh, attirant ci sa melokaana bind maanaam yàlla bindee say jikkoon na ko gën a mën a attiré nit ñi ci yow euh, loolu daf ñuy fàttali wax ju ñu Cheikh Mouhamadul Moustapha Karim moom Serigne Touba waxoon na ko ne na ab murit dëgg bu melee ni mu war a mel ku ko séen danga koy sopp waaye bu agsee ba ngeen jëflante nga bëgg ko fekkee ne dégg nga wala boo bu fe bu accès ba wax nga bëgg ko waaye bu jëfee nga naw ko bu fekkee fàttewuma tegale bi dafa mel ni noonu la woon nga xam ne daal day correct ci melokaan waaye bu waxee gën laa neexati su jëfee nag ba nga gis ay jikkoom nga gën koo bëggati loolu mooy euh, finalité bi jekk kon ndeke woo ñun kat sol yére yu ñu ne ak a jekk ku mel aw yaramam ni melal ku nii diw ko wala mu nangam ko ba ba nga xam ne ku ko gis daal day daal di kii ñu jàpp ne kookoo jekk ndeke woo ki jekk dëgg dëgg ay xalaatam dañuy am solo ay sentiment am di jëm fu baax waaye ay jikkoom itam di rafet lool loolu lañu xikma bi doon indil ñu bañ a fàtte benn yoon di wax wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wasallama ñu ngi sant ñëpp di gërëm di jéggalu wasalaamualeykum wa rahmatullah